asalaamaaleykum mbokki jët ndar ak mbokki ndar ñu ngi leen di nuyu defe naa tey waa jët ndar dootuñu wax dara ndax eh, lenn rek xaw a fuuse ci visite bi mooy samay nijaayu jët ndar dañu yóbbante woon ne nañu fexe bu dugg bi ci bëccëg waaye lii moo dàq bëccëg nag sax lu ne nag def nañ ko pour egg si fi bëccëg waaye yéen a ngi doon suivre caravane bi gis ngeen fi ñu jaar yépp ak jafe-jafe yi am waaye li ëpp solo moy dugg si nañ ci dëkk bi te ni ko président Déthié waxee kenn mënul wax ndar te waxoo Guet Ndar yegg si nañu Guet Ndar ñu teer suñu fi teeru bu am solo ñu ngi nuyu waa Guet Ndar yépp di wa waa langue de barbarie bi yépp nag bàyyiwuñu kenn di kontaan ci ni ngeen ñu teeroo ndax dama leen wax fële ci gannaaw ne leen bu ñu ñëwee fii dinañ leen wax tuuti ci li ñu bokk ak ndar faraluñu nag di dugg ci débat yooyu parce que ay waxu mbokk ak waxu foo féetee du loolu la sénégalais yi soxla ci nit ñi li ñuy soxla mooy ñu ñëpp ay sénégalais lañu dañu soxla les sénégalais qu'il faut à la place qu'il faut et pour faire le travail que les sénégalais attendent. waaye nag comme il y ba fii occasion la waa Ndar est-ce que vous ngeen lu ma bokk ak yéen sama maam di jur sama waay jur bu mi ngi juddoo fii ci Guet le 26 avril 1914 sama maam bi tudd Duudu Ngom Maram Touré waa Guet Ndar la fii la juddoo le 26 avril 1914 kon su ma ñëwee fii samay nijaay rek laa fi fekk samay mbokk rek a fi ne su ma ñëwee fii fii góor gi fi nekkoon nekk président des mareyeurs en tout cas na cër bu rëy ci mareyeurs yi ñu koy Ablaye Sylla Ngom moom baayam ak sama maam ñoo bokk ndey ak baay kon camarade Déthié defe naa suñ doon jeex ndar sax yow ba moytu ma fële fi de defal attention nag bokkantuuma fi dama fee bokk depuis fi ñuy wax ngii ngi rax nga xam ne mooy samay cosaan dëgg ba ba ba param parce que alaaji Rawane Ngom bi ngeen di dégg fu ñu bokkee mooy koy wax Yuqu Ngom ñaari doom la amoon ki ñu koy wax Baara Ngom ki ñu koy wax Sanu Xujja Ngom Baara Ngom moo meññ ba Rawane Sanu Xujja Ngom moo mer ba sama grand-père man ba man mii donc Ndar kenn ëppale wu kenn ëppale wu fi Ndar loolu nag yàlla dafa may chance boobu Sénégal bu ma taxaw rek buñ fa doon xëccoo bu ñu daggee affaire bi séddoo ko kenn du ci ëppale de moo tax Macky Sall Macky Sall dafay caaxaan xam nga dafay fooye xelam dafay fooye xelam ndax xam nga bëgg nguur ak bëgg a des ci nguur warul tax ngay fooye yenn ay waxu tappale yu ñàkk fayda yoo xam ne ay waxu rébellion ay waxu terrorisme waxu ñàkk fayda yoo xam ne moom ci boppam saa yu toogee ci guddi moom ak procureur ak ñi ànd ak moom wallaay xam nañu dañuy fenn man maa ko man gis nga Sénégal Sénégal xam nga Sénégal lan la ut ñun naka la ñuy fexe ba am lu ñu yokk ci Sénégal la ñuy seet fu mu toll nii panafricanisme bu ñu gëm waxuma dañuy dem annexé dëkku jàmbur waxuma dañuy nangu place jàmbur waaye dañuy def ba yaatal ba Sénégal jógee cent quatre-vingt-seize mille kilomètres carrés dem ci six millions de kilomètres carrés muy espace CEDEAO lool mooy si yitte ñun waaye ay dagg fii dagg fële yëpp ñàkk fayda yooyu loolu Macky Sall rek moo ko mën a xalaat. moo tax ñu ngi koy xaar ci taatu ndaa la na continuer ay complot rek su yaakaare ni mun na complot ba éliminer adversaire politique bu ko jaaxal mi ngi nax boppam de 2024 bëgg jóge fi bañ jóge fi Macky Sall gas loolu gannaaw yàlla kenn mënu ci dara mbokki gendar dinañu wax tuuti ci wàllu napp parce que fii nag mooy cosaanu napp dëgg dëgg dëgg géej gaa ngi nii suñu wet dama fee ñëw ay tournée yu bëri ñu dem ba ci mbaar ma fële toog di waxtaan ma ne sama mbokk mool yi may leen naxe bi bëri na Macky Sall ay gaal yu bees la leen bëgg naxee gaal yoo xam ne nee nañu léegi gaal yi ñu doon demee géej baaxul mooy ñuy yepp ci garab gi mu andi ay gaal yoo xam ne defe naa ba léegi sax ñi koy utiliser bëreegul ñaareel bi ñu doon essayé naxee mool yi mooy moteur hors bord bu muy joxe deux mois un mois mu yàq bi ma ñëwee fii li ma leen wax mooy parce que tam ñuy waxtaan rek dañuy waxtaan parce que li xew ci réew mi ñun ñëpp dañ ci am dama leen ne bu doon gaal yi Macky Sall di joxe baax na mu mayee ko sax bu doon moteur yi baax nañ ko mayee sax waaye boo amee gaal am moteur te soo duggee ci géej gi doo ko fekk jël lu muy jëriñ lan lay jëriñ mooy li ngeen di dund xam nga ñàkk bëgg sa bopp ak ñàkk bëgg sa réew weesuwul nga am géej goo xam ne macha allah tabaarkalla ndar gi ba Cap Skirring sept yoo xam ne loo bëgg ci jën am na fi nga jël loolu jaay ko danañ la ciy fay tubaab yi dañ la ciy fay chinois yi dañ la ciy fay russe yi dañ la ciy fay ak keneen ak keneen yow lan kay ñàkk boo ko multiplier woon par mille du tax nga am lañ cay ñàkk nga am sa alalu bopp daal koy sàggane joxe ko te joxe bi yëpp nag mooy li xew ci yeneen ressources yëpp naa ci ñëw mooy dañ koy wañ loxo nattu weesuwul président la république bu amul fulla amul courage

dañuy dem di négocier ak Mauritanie yeen ñaata ngeen di jëndee licence 1 million ak bu fegu te bu ngeen ko jëndee ba pare mënu leen napp wala su ngeen nappee ñu leen da ngeen di débarquer ñoom seen plage il faut ngeen dem njaago wàcce ko foofu est ce que loolu yoon la di leen jàpp di leen tëj di leen dóor nguur gi toog fii di seetaan jox ay bateau ñu ñëw duñu respecté norme yi seen mbaal baaxul lu leen neex la ñuy bu paree jël li ñu soxla li ci des ñu sànni ci géej gi loolu ñàkk fulla weesul loolu jamono bi muy dox daanoo toog ba dégg mool mu naan maa ngi def sama gaal dem Barcelone ñun ñëpp mool mënoon nañu fay kon loolu du rek du e, du compte conséquence bi mu am rek ci yéen mool yi waaye conséquence bi mu am ci société bi parce que napp danaan dundal danaan liggéey loolu ëpp un million cinq cent mille personne kenn ku nekk ci ñoom li des li nekk ci gannaaw ci famille ñaata nit la tey loolu yëpp sooxe na waaye li gën a garaaw xam nga li ñuy wax amélioration suñu nutrition ñu li ñuy lekk jën bu baax amul lu ko gën ci looy lekk moo gën foofu yàpp ak leneen mais tey ñaata sénégalais ñoo mën a jën bu baax yaa booy sax dégg gisatuñu ko càccax beeg ñebe bi rek parce que lépp su ngeen demee da ngeen di dem dem bu ko sonn da ngeen di dellu seen saay du ngeen am dara kon suñu ñëwee ko fii war koo wax bu ngeen di joxee majorité assemblée du ñun ñooy signé convention yi dañ koy wax mu leer président de la république constitution jox mu mën a signé accord yi waaye assemblée nationale am na sañ ne ko andil accord yi nga signé ñu saytu ko benn bu ne ñu xool ndax njëriñu réew mi la bi ma ñëwee fii ci élection présidentielle jotuma dugg waaye meeting bi ñu ko defoon feder dama leen ne sama programme ñaar yi bokk na ci bu njëkk mooy fii ba li ñuy wax quatre-vingt-dix mille miles ci anglais ay kilomètres kilomètres lu dul gaalu Sénégal du fa napp ku bëgg a napp da ngay dem ku gën a sori ci les eaux continentales pour a napp foofu. ñaareel bi ku ñu jox pour nga mën a napp fu gën a nga xam ne suñuy gaal dinañu am jafe-jafe dem fa loo napp ba pare di ko jëw fii nga koy wàccee fii nga koy débarquer Sénégal ba noppi ñu xool ko xool liñ ci soxla nga doog a bàyyi nga dem gis nga Mauritanie loolu la ñuy def. waaw lan moo tax Mauritanie ëpp ñu jom ñaare bi may wax mooy bël bi wax nañ ci waxaat ci ba may nekk député assemblée nationale xam ngeen constitution dafa may député mu mun bind nguur gi laaj ko pour mu joxe explication man en tant que député man ma bind député séeréer yi bind ñu ko de fii da ngeen faloon ñaari député musuñoo bind wala ñu affaire bël man mii maa bind nguur gi ne ko bi di ko am Wade di ubbi mooy jamono ji nga xam ne taw bi dafa foor a foor a foor inondation yi fees dex gi doon menacé sotteeku ci biir seen ñu ne ban solution la ñu wut bi mu ne dafa bëgg ubbi brèche borom xam-xam yu bëri dañu ne woon d'accord ñu si ñu bëree bëri waaye nag jamono jooju li ëpp dañu ne woon solution boobu rek moo am lu ko moy dex gi dina dina dina déborder te boo moytuwul ay quartier Sahel yu bëri dinañu suux ci ndox ñu ubbi ko dex bi ñu koy doog a ubbi 3 mètres la woon 3 mètres xam nga 3 mètres matul fii ak fële waaye dex bi léegi ëpp na cinquante kilomètres 50 kilomètres ëpp na ko bi ma bindee ñu répondre ma gouvernement dama mbiru mbiru bël bi réglé nañ ko ba pare presque ndax jël nañ benn entreprise su ma juumul ay chinois jox nañ leen xaalis bu bëri. ñu ci liggéey léegi mu jeex daaw daal laa toog rek quelque weer ci gannaaw en tout cas laa toog dégg ñu ne chinois yi takk nañ seen bagage dem nañ ñibbi kontaanuñu nee nañ ñoom mënuñu defar mbirum bël bi ñaata milliards lañ ci dugal lekk xaalis bi te léegi problème bi réglé wu saa su ne suñuy doom suñuy frère ñoom ñooy dee ci géej gi te du ngeen dégg Macky Sall jaare sax jaare waaye bu ñu ne woon xaj sax dee na fële mu jël suñu avion ne mi ngi dem présenter des condoléances kon loolu du yoon loolu tam ñu wax ko fii ñetteel bi ma bëgg a wax tamit dama leen ne woon suñu ñëwee ba étape bii dinaa wax ci li nga xam ne moom rek nag déglu leen ma bu baax lu am solo lii may wax nii moom rek mën na régler problème bu Sénégal ba benn ndaw nekk chômage moom rek. Moi, je ñuy wax gaz wax pétrole bu Sénégal dafa am gaz am pétrole Le pétrole daanaka fu ñu jëm ci pétrole am parce que ñaar moo tax jamono ji États-Unis dañuy utiliser le pétrole de schiste fracturation hydraulique loolu mathématiciens yi ñoom dañ ci xam nañ ko ba tax ñoom li ñuy produire du pétrole tey même Arabie Saoudite mënatul concurrence États-Unis su leen neexee tey tey tey ñu kase prix bi su leen neexee ñu yokk ko moo tax pétrole day ñàkk valeur xanaa guerre am de comme ni xew actuellement Russie mais bu guerre amul baril bi dina wàcc ba ay vingt dollars vingt cinq dollars ñaare bi tax pétrole dootul am njëriñ lu bëri mooy li ñuy wax les énergies renouvelables solaire bi hydraulique bi éolienne bi ak yeneen énergie waaye xam ngeen lan moo am solo fi mu ne nii mooy gaz bi est-ce que xam ngeen ni fi ñu toll nii Sénégal moo yor la troisième réserve mondiale de gaz xam ngeen ko troisième réserve mondiale de gaz Russie Russie moo yor première réserve de gaz avec 47 trillions 47 trillions trillions pieds cubes 47 trillion xam nu ma koy waxee xam nga benn trillion mooy 1000 milliards 1000 milliards mooy benn trillion donc su ma leen nee 47 mooy 47 000 milliards à peu près du exactement ça ci pied cube wala ci mètre cube Russie moo jiitu Iran moo ci tegu avec 33 milliards 33 millions de milliards noonu la trillion xam ngeen kan moo ci tegu. Sénégal avec 32 milliards 32 milliards Qatar Qatar 24 la Qatar 24 15 Saint-Louis 15 louis 15 millions de mètres cubes l'année fekk Kayar 17 lañ je fekk ñaari soo ko boole mooy ñaata ñaari mooy 32 léegi nag ma wax cubes. benn mètres benn trillion de mètres cubes xam ngeen ñaata mooy nga jël benn baar boo xam ne neuf mètres de long de large neuf mètres de hauteur ñu warale ko ñetti yoon le tour du monde loolu mooy benn trillion ku ci am 32 trillion xam ngeen alal googu ni mu toll loolu rek wallaahi loolu rek suñ ko géré woon ko géré gis ngeen Qatar ni mu mel gis ngeen Dubaï ni mu mel Sénégal lu ko raw la war a mel parce que ñun dañ cee boole loo xam ne ñooñu amuñu ko ñun dañoo am ñun dañoo am gaz am pétrole am suuf soo xam ne mën nañ ci bay nga dëkku naar yi amul foo mën a bay désert ñun dañoo am suuf su mën a bay am géej goo mën a nappe am phosphate am zircon am lépp amul lu ñu manqué kon ñun ñoo ëpp naar yi xaalis téeméer yoon France ñoo ko ëpp alal waaye nag mbokk yi léegi nag wax leen leen xam ngeen lan mooy problème jërëjëf dix mille problème xam ngeen lan mooy problème bi léegi lii mooy li nga xam ne yàlla may nañu ko ci alal te benn kese la gaz bi la waaye yéen naa bëgg a waxal yéen Guet Ndar yéen naa bëgg a waxal yéen Sénégal yéen waa Saint-Louis ñëpp Macky Sall dafa jaay suñu gaz ànd ci ak rakam Aliou Sall ñu leen jël benn saay-saay bu ñuy wax Franck Timis dégg leen moom baax benn saay-saay bu ñuy wax Frank Timis daal koy signal jox ko suñu gaz ci anam goo xam ne musiba la ci ñun xam ngeen tey soo buggee gagné ci sa ressource naturelle ci ñett ngay gagné bu njëkk bi mooy fexeel ba les droits les droits parce que genre société de fait la nga fexe ba droits yi nga ëppale ci xam ngeen ñun ñaata la ñu am ci droits yi 10 pour cent lañ ci am 10 pour cent tubaab yi ñoo moom les 90 pour cent.

wala su dee pétrole ñu ne ñaata bari la ñu génn ci jour ñu ne yow Sénégal ñaata nga ci am tubaab bi ñaata la ci am waaye boo jëlee lu mel ni pétrole bi li ñu signeel total il faut que ñu egg deux cent mille barils par jour pour que ñu am cinquante pour cent cinquante pour cent su ñu nekkee cinquante mille barils par jour total mooy am quatre-vingt pour cent ñun ñu am vingt pour cent est-ce que loolu baax na loolu mooy ñaareel bi nga xam ne ñàkk nañu mooy impôt bi nga war a fayeeku ci loolu parce que gars yi ñëw ngàcc sa alal yóbbu te duñu fay dërëm ci impôt ci réew mi ci jamono jooju borom boutique bi nekk fii ñu ñëw ne ko da ngay fay impôt yi tëj boutique bi moo tax mbokk yi importance élection yi li bokk na ci de su ngeen gisee Macky Sall troisième mandat am jot jaral na ko bakkanam moom xam na li mu def ci pétrole de gaz bi tax xam na ni bu fi jógee dinañ ko leeral ba mu set wicc te ku ñu def loo warul woon di ko wàccu di ko delloo Sénégal loolu tax moo waral su ngeen gisee troisième mandat jaral ko bakkanam tubaab yi nekk ci gannaawam ne signal na leen ba wi yegsee li ñu amoon ci avantage yëpp dañ koy renégocier te bëgguñu loolu am moo tax ñu ne Macky Sall rayal dóor tëjal ñu ngi ñun nag ñun nag yoruñu armée yoruñu gendarmerie yoruñu police waaye yéen lañu am yéen la bopp yéen lañu am est-ce que bëgg ngeen est-ce que bëgg ngeen ñu moomaat suñu réew est-ce que bëgg ngeen ñu jëlaat suñu alal ngeen dafa am moment yoo xam réew bu ci tollee na ngeen xam ni rek ne réew bu ñu tollee dañu waxante dëgg gis ngeen ñi toog seen salon taal seen climatiseur naan leen bu leen génn bu leen xeex Sénégal jàmm la ñu gëm patati patata te ñoom seen coono gi ceeb a ngi tooy jeunesse bi di souffrir bopp bi di souffrir réew mi fi mu sa baax déggu révolution 1789 en France déggu leen guerre d'indépendance pour les États-Unis réew mi fi mu sa baax dafa am génération ci réew mi. boo xam ne dafa jël responsabilité am gis lu baax xam lu baax mu jaral ko li mu ko jaral dañu ko jaral ba ñu sàgganee ba Macky Sall def lu mu bëgg a def wallaahi dinañ toog fi jooy bëccëg biir kam te duñu gis suñu faral loolu mooy enjeu élection yi jëlee bi Macky Sall nag du 2024 rek day jëlee bi Macky Sall tey tey tey jii la parce que su ngeen ñu joxee majorité du ma ne dinañ négocier renégocier contrat yi de teel la 2024 la

soxlawuñu dem bu sori de li ma bind sama livre bi ma tuddee chronique d'une spoliation sama premier livre bi ne dañoo sàcc suñu pétrole ak suñu gaz te ba tey ji déggagu leen ko ko weddi bis bu ngeen joxoon ma majorité assemblée nationale mbir mi leer dinañ leen woo dinañ leen enquête def ko enquête publique nag télévisé ko Sénégal yëpp seetaan parce que constitution may nañu ko bu boobaa di ngeen xam ne gars yi mën a sàcc dañoo sàcce sàcce sàcc moo tax koo ci gis ñu mel ni ballon football koo ci gis ñu ngi ni ballon football kon kon li may wax nii dafa am solo de wallahi réew mi la ñuy waxtaanee fi mu ne nii nekkuñu ci ay affaire politique de animation bu jotee animé nañu bi ñu duggee dëkk bi ba léegi waaye lii lañuy wax loo xam ne suñuy sët ak suñuy sëtaat. bu ñu bëggee ñu dund lu mel ni Qatar wala lu mel ni Dubaï wala lu mel ni Arabie Saoudite wala lu mel ni Norvège parce que réew yooyu yëpp nag dañoo am fulla Arabie Saoudite moo moom 100 pour son pétrole moom 100 pour cent de son gaz Sénégal moom 10 pour cent de son pétrole et de son gaz ñàkk fu la weesu su ngeen bëggee suñuy sët sët yi sax sori na parce que ñi nekk ñëpp ay 25 ans 30 ans suñu jëlaatee suñu alal. ci 10 ans ñu soppi Sénégal def ko beneen réew moo tax nañu ko jaral nañu ko jaral parce que Macky Sall caaxaana ni mu nekkee ni jaral na ko lu bëri de ñun nag suñu sàgganee mu bañ ñu koo jaral fii la ñuy toog ku leen nekk toog leen yem leen soit dafa xamul lu xew ci réew mi wala dafa jot bu alam ci mbir mi yéegul lu askan bi di di dund waaye est-ce que njëg gi seer na actuellement Sénégal njëg gi seer na wala seerul jeunes yi am nañu liggéey wala am ñu liggéey nit ñaa ngi faju correctement école yi baax na te jamono jooju ñu ngi am fii alal gu dul jeex alal gi yàllaa ñu ko jox yàlla nag su la joxee su la tàccoo feccoo xamal ni doog di nga gëj a fecc bi mbokk yi élection ñu jëm assemblée nationale la fal su ngeen bëggee xam luy njëriñu assemblée nationale jox leen ñu majorité di ngeen toog bañ a nekkate ñun lii assemblée nationale di xam ngeen ni Fatou Ndiaye Diaz mi ñàkkul ñàkkul fulla am na jot pour nekk xam ngeen ni xam ngeen ni Abass am na fulla xam ngeen ni Guy Marius Sagna am na fulla am na ñoo xam ne nekk nañu député ñu dugg ñu assemblée nationale. kon kooku soo ko dugalee assemblée assemblée soppeeku tey ñun ñooy am ak ñoom di liggéey ñooy liggéey ci projet de loi yi ñooy liggéey ci commission d' enquête parlementaire yi te bu ñu jotee majorité assemblée nationale Macky

moo tax il faut ngeen jox ñu majorité à l' assemblée nationale c' est important am na nag gis ngeen su loolu am fii laa koy waxee wax ko Sénégal yëpp il faut voter utile bëri nañu fii bàkku di fëgg dënn su bëggoon jot ñu ngi attaqué ñun te déggu leen ñu wax seen affaire barki démb laa leen xaw xosi rek xosuma leen sax dama leen romb rek ñuy fëcc fëcc di yooxu ci presse bi di saga. di xaste li mo waxoon barki dem lay waxat nag gis nga li xew ci pétrole bi amna ko xamné tay mi ngi mi ngi taxaw ne mom moy le champion de la transparence mom ay loxom dafa set te signé na ci pétrole bi lo xamné mo ñu jural musiba bi yeb bi mi nek ministre de l'énergie la ci delu ci après élection yi parce que Sénégal dafa bari ay faux débat bu ñu nekké ci biir di di sàqami do leen dégg ñu wax bu ñu génné ñun bi ñuy xeex fii bi ñuy xeex fii ñoom fa la ñu nekkoon cinq dernières années sept et dernières années yi kan ngeen dégg ñu opposé wu fii kan ngeen dégg ñu opposé wu ñu jékki-jékki génn ñu ñëw alal ne leen fexe leen ba affaiblir opposition bi fi nekk muy intercoalition Yewwi Wallu loolu mooy dëgg bi su ngeen bëggee Macky Sall ñàkk assemblée benn bulletin bu ñu yéene jox opposition te sànni lu ñu ko Yewwi Askan Wi ak Wallu bulletin boobu yàqu na nax saay na loolu moom dama ci wax dama ci mooy te dara mënu ma cee dindi voté utile et voté utile c'est voté Yewwi Askan Wi ak Wallu mbokk Ndar waxtaan bi mënul yàgg guddi na te ñun dañoo war a fanaani Dakar wala dañu war a xëyee ji Dakar ndax suba nag borom Dakar moo xewle il faut Dakar yëngatu bu baax moo tax Boobu Mbaye. dinaa la jox léegi. bi waroon dooree mooy nuyu nag parce dëkk boo duggee da ngay commencé ci buntu ba ñu ngi nuyu kilifa Guet Ndar yëpp rawatina ak imam bi imam Ousseynou Sène xam naa ni léegi sama mbokk séeréer ay imam lañu maa koy nuyu bu baax. di ko ziyaara bu dul woon li mu guddi trop dinañ dem taxaw këram nuyu ko saafonteeg moom moom ak notable yi nekk fii yëpp ñu ngi nuyu sama mbokk mbaar ma fële ndax am na mbaar Ousmane Sonko ci kanam maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara yéen ñëpp di leen gërëm ci tertu bi di leen wax nag ni fii saint Ndar wax naa ni fii kenn gënuñu fee bokk vol bi vote nekk affaire mbokk de bi ñu génnee ci élection bi xam ngeen suñu candidat bu jàmbaare bii jàmbaar la de jàmbaar xam ngeen ni Aba jàmbaar la de ndax ñun fi fekk ñëpp ay dinosaures lañu moom muy un petit poussé waaye bi ñu génnee ci élection bi defe naa ndax ñëpp am nañu surprise Aba rattrapé nañu.

ngeen may may ma remercier sama professeur suñu mag suñu xarit suñu kilifa muy Mary Teuw Niane non seulement maa koy remercier waaye ñu ngi koy tàllal suñu loxo ne ko li ñuy liggéey nii xaj na ci place am ci yàgg nañu waxtaan à distance waaye dama ne woon ñun bëgguñu koo gérer parce que fii léegi ñoom ñun suñu principe dafa am nu mu demee lu ànd ak ñële rek ñun dañ koy sori waaye nag xeex bi ñuy xeex ñëpp vous ci kon jël na responsabilité ñëw jàppale rakam ñëw jàppale Aba avez jàppale ko ciy gërëm ndax li mu amoon muy dix mille voix boo ko booleeg li yi wal ak yu ñu amoon raw Bokk Yaakaar de presque dix voix encore man li ma gëm ñun rek diggante boobu léegi li fi avant liggéey li fi yeewi askan wi liggéey loolu rek mënoon nañu may ñu am majorité fii mbokki Ndar li ma leen di ñaan yaa a un vent du changement qui souffle sur le Sénégal et ce vent de changement là gannaaw yàlla amul lu ko mën a arrêté Macky Sall tuuti na ci torop torop torop torop pour arrêter vent du changement boobu nag élection locale yi dafa am ñu ko ñu ko ñu ñu ja ñu ñu ànd ak vent Ndakaaru ci la bokk Géejawaay ci la bokk Kër Massar ci la bokk Rufisque ci la bokk Thiès ci la bokk Kaolack ci la bokk Mbacké ci la bokk Ziguinchor ci la bokk Bignona ci la bokk Oussouye ci la bokk ak feneen ak feneen kon nag fi ñu toll nii yéen nag samay nijaay waa Ndar da ngeen war a def remontada xam naa ni waa Ndar ay gor lañ Ndar du moroomu gars de Ndar moo fi njëkk a produire ay intellectuel Ndar moo fi njëkk a produire ay muqaddam Ndar moo fi am école coranique daara yu gën a mag ci Sénégal ku fi jàng ba màcc jaar nga Ndar kon Ndar dignité a leen xamee diine lañ leen xamee jom lañ leen xamee fulla lañ leen xamee Ndar warul nangu nekk otage d'une famille ou d'une dynastie Ndar war nangu jàpp ni rek famille la ndar la ñu dëkk saa su élection jotee ñu débarqué fii ak ay milliards yoo xam ne xam ngeen fu mu jógee ndax démb ak barke di ni amuñu woon dërëm démb ak barke dem mënu yoon jënd suufu ndar mënu yoon jënd këru ndar yi tey ñu yor ay milliards ñëw di essayé jënd waa ndar ma ne bu ñu àndee xaalis bi jël leen de buñ ko àndee jël leen waaye bu élection jotee bu ngeen duggee xam ngeen bu ngeen di voter jël leen bulletin bi bu weex tal bi moom rek moo amul photo yeneen yëpp am na photo dugal ko ci urne bi daal di voter seen doom Abba Mbaye bu ngeen ko defee yéen ngi ci dans le vent du changement et ce vent du changement là doit être ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa